من سنني قيا قديم المصطفى فإنني أقيمه بما سفى من سنني قيا قديم المصطفى Euh, ñu buggoon waxtaan tuuti euh, ci wàllu actualité parce que boo xoolee euh, mag ñi démb dañoo dañoo doonoon benn tey wane na ko ci sa diggante ak sëñ Sidi ngay gis xale yi ñu ci bari ci wàllum tarixa dañuy ŋàññante ci réseaux sociaux yi di waxante loo xamante ni diine bëgg ko lislaam bëgg ko mag ñi démb bëgguñu ko. waaw moom moom moom laa la moom laa la expliqué léegi. Hmm. dañoo bàyyi li nga xamante ni. moom la mag ñi soxla woon te ñun ñu war koo soxlawoo ñu jëm ci li nekk ci li nga xamante ne amul ñu benn njëriñ ndax ku war a yéeg ci kaw kër di eh, di di di xuloo di di xuloo ay escalier man maa la gën a rafet escalier maa la gën a nangam escalier te escalier yi yéen soxlawu leen lu leen soxla fu ñu leen di xaar mooy ngeen ñëw ci kaw kër kon loolu ñu koy def seen ñàkk xam ñàkk xam la ak ñàkk yeewu ak ñàkk jàng ndaxte man li ma gëm mooy booy oote woo ne maam Cheikh Ibrahima Fall mooy sa sëriñ. Mm-hmm. war ngaa fexe ba jikkowoo jikkoom. Mm-hmm. waaw jikkowoo jikkoom ba nga xamante ni ku la gis rek dina xam dina xam ne kii nii de ah wax dëgg yàlla euh, waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. ndax koo xamante ne nee nañ bu ñëwaan ci kanamu sëriñam dina wax ak moom ba pare muy laajte ne sëñ bi lu mu dem wax lan la kooku mooy ne moom bu teewee ci kanamu sëriñam rek day faddu. neewatul fa. léegi nag yow bu fekkente ne taalibeem nga te jikko yooyu yow jikko woo ci dara ah lu dul rek yére bu sol yére boo xamante ni niru na ay yéreem wala euh, sol mbaxane ne ma bàyyi ñi la daan solo wala jël kaarak alxaaji Malik si radiyallahu anhu ne nii la loolu amul amul amul njëriñ li am njëriñ daal mooy ñu xam ne ñoom dañ fee nekkoon sonn ngir diina ji taxaw fii ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ndax gis nga li fi baax fii yëpp ci réew mi ñoom ñoo ko liggéey li fi baax ci réew mi yëpp ñoom ñoo ko liggéey ñu yëg ko nag ak ñu yàgg koo yëg waaw waaye li fi baax yëpp ñoom ñoo ko liggéey waaye nag liggéey bu métti la woon ci ñoom seen waxtu yëpp dañ ko jëloon jox ko yàlla kenn ci ñoom xalaatul doom xalaatul jabar xalaatul dara te loolu yëpp am nga ko waaye nag yàlla ku ko jox lépp moom it mu jox la mu jox la mu jox la lépp wax dëgg yàlla moo tax daal lii gën a am solo mooy nañ fexe jàngale mag ñooñu ñu jéem cee nekk. te ñu moytu xasta waa tey amul njëriñ xasta amul njëriñ te ndaw war nga war nga seet li lay jëriñ nga nekk ci waaye nekk ci diw nii la mel sama sëriñ nii la mel sama sëriñ nii la mel boo xoolee na yow eh, sa sëriñ mooy weer kee jàpp na sëriñam mooy weer waaye nag li ci biir yàlla rek moo ko xam te bu fekkente ne danga nga koo topp ngir yàlla ah ak lu mu mënti xew yow danga nga jëriñoo ci moom ndax xooloo na moom moo sut kii moo sut kee waaye da nga seet ne kii da laa war a yeggal ci yàlla kon li la war ci moom da nga ko def yoon bu mu lay teg mu nekk yoon siraatal mustaqima a nga ci nekk hmm. bu fekkente ne gisoo ci moom yàlla demal nga seeti leneen waaye nag jamono ji euh, wax dëgg yàlla nit ñi li ñuy xool ci sëriñ yére bu rëy ak euh, sëriñ bi mu ëpp taalibe nangam ak nangam loolu amul njëriñ amul njëriñ hmm. waaw ndaxte booy seet euh, wax dëgg yàlla ñoom luñ fi jëf yëpp gisuñ ko xooluñ ko waxuñ ko waaw luñ jëf yëpp waxuñ ko hmm. waaw boo waxee rek ñu ne bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa topp yonent bi sallallahu alayhi wa bu doxee ñu dox bu jullee ñu julli ah bu jaamee ñu jaamu yàlla ñu jaamu yàlla bu saraxee ñu saraxee ah loolu rek moom moo leen itteewoon kon nag nañ xam ne Sénégal benn la waaw te wax dëgg yàlla booy xool tamit da ngay gis ne ñoom ñëpp ay mbokk lañ koo xool rek boo xoolee eh, cosaanam da ngay gis ne moom ak diw mi ndekk te ñoo bokk nangam. léegi nag ay mbokk yu mel noonu ñoom dem nañ ba fàtte fàtte fàtte fàtte mbokku deret googu waaye jàppante nañ te yàlla tax léegi nag nga xool ne mbokku deret a nga fa ak mbokkoo ci yàlla mm-hmm. te mbokkoo ci yàlla moom moo gën a fool ñun ñu ñëw ba jamono ji mbokkoo ci yàlla gi ñu bugg koo teg nele deret ji ñu bugg koo tuur ah kon de dinañ jiwoo ak ñoom lañu bëgg de mm-hmm. loolu daal moom mënu ci xam. taalibe bu bu bëgg a topp ndigalu sëriñam jëfee ko ba fu sëriñam gisee taalibeem naw ko taalibe boobu nan la war a mel yan jikko la war a melokaanu. waa jikko jikko taalibe moom xam nga taalibe. Mhm. mooy koo xamante ne dafa bëgg yàlla. Mhm. ne faw dina am yàlla. kooku bu ko utee. Mhm. faw dina ko am. ndaxte euh, néew na nit. ut dara bëgg ko ut ko te amul ko waaye néew na nit utoo dara bëggoo ko ba pare am ko yëpp nag ñaar yëpp nag yàlla mën na ko def ndax yàlla moom moo yore ay mbiram yëpp waaye nag eh, nit ku jug ne da nga war a dem ci sëñ sëñ Sidi dimi pour mu yeggale ma ci yàlla hmm? li ngay njëkk def mooy nga génnee yow lépp loo xamante ni lu ñaaw la lu war a nekk ci doomu aadama nga génnee ko teg na le xam na yow yàlla nga bëgg mu fees ci sa xol boobaa yéene bu baax boobu nga am boo ñëwee ba ci sëñ si yàlla rek nga fay fekk waaye bu fekkente ne yaa ngi ñëw te li la tax a jóg xamoo ko bu fekkente ne sëñ Sidi ku baax la mën na laa dimbale ba nga yegg fu baax bu fekkente ni nekkul koo xamante ne savant la boo amul chance mën nga nekk ci yoon waaye li ci gën a am solo mooy daal euh, li ñuy suñ maam Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di wax ni jullit li nga war a njëkk a def mooy boo boo boo yeewoo rek na nga na ko nanga nga jàng mm-hmm. boo jàngee ba xam hmm, booy toppee da nga xam nan nga war a toppee mm-hmm. waaye bu fekkent ne yow danga jug rek euh, jàpp ne dañ laa indi fii pour foo mm-hmm. nekk ci lu la neex ba mu neex la rek boo gisee ñu. ñuy fecc rek nga gis ne ah kon man fecc laa leen def xaaral man taaw seen wet ne damay ne ci ñoom laa bokk. te fekk ñoom xamul waral seen fecc. ak fu ñu yegg bay fecc. Hmm? moo tax tamit nañ xoolaat suñ jikko yi defaraat suñ bopp xam ne kuy jëm ci yàlla danga nga koo war a pare. da koo war a pare raxas sa xol jëflante ak nit ñi ci jàmm. fonk say waajur surtout fonk say waajur ndax jamono ji ñu bëri ñu sànq loolu rek mu leen sànq. Hmm. ñàkk fonk seen waajur yi te sëriñ bu gën a mag mooy sa waajur loo ko defalul ci lu baax sëriñ bu nga koy defal jaru waaye boo ko baaxee boo ñëwee ci sëriñ bi loo ko defal rek dafay mel ni euh, juróom-ñaari yoon nga ko def kon nañ fonk waajur yi te aussi waajur yi ñu jël seen responsable ci ci ci ci ndaw ñi bu waxtu jàng jotee ñu jàngloo leen waxtu yor jotee ñu yar leen mm-hmm. bañ a bàyyi suñ xale yi ak tubaab yi mm-hmm. muy réseaux sociaux yi ah muy télé yeeg yu kenn xamul fi mu nekk nii man li ma gën a jaaxal sax mooy que ni euh, émission yi ni muy demee ci tele yi mm-hmm. dafa xaw a doy waar nit mën na nekk fële di woy ba mu nekk rek ñëw di présenter émission invité ab kilifa boo xamante ni moom mbiru diine rek moom mooy liggéeyam dina ko laaj ba laaj ko moom muy laajte mën na am sax amul ci benn intention mais dana ko laaj ba laaj ko loo xam waru koo laaj wala mu laaj ko loo xam maîtriser wul ko moom kooku bu nekk ku màndul mën na ci wax loo xamante ni leneen rek lay indi kon nañ gën a góor góorlu topp yoon wi xam ne ñii ay yoon lañ rek yu jëm ci yàlla ku bugg a yegg ci yàlla nag mooy ànd ak ñoom ndaxte fi mu nekk nii yow balaa ngay doon euh, Baay Faal da nga nekk jullit nekk murit soo nga nekk Baay Faal ah? léegi nag loolu euh, étape yooyu ngay tëb lan la ci sa dund bi du dara xëy rek sol yére ni mooy ne yegg si naa fi xam nga loolu xelwul buñ nax suñu bopp daal buñ nax suñu bopp xam ne ñii dañoo jëfal yàlla ba yàlla yeggal leen fu ñu yegg nii naxantuñu woon ak moom comme ku bugg a jëriñoo ci ñoom doon naxante ak ñoom salaamaaleykum. jërëjëf sëñ bi jërëjëf kontaan nañu bu بالمصطفى فإنني أقيمه بما سفى من ذلني غير خبيب بالمصطفى فإنني أقيمه بما سفى